di wax ni aussi jumaa ndakaaru ji fay na jafe-jafe yi nga xam ni sëñ tubaa dund na ko fi sëñ tubaa ñépp xam ni non violence ci moom la jëkke ci moom la jëkke te ni ko dundee kenn dundewu ko jàpp leen ni ñi ngeen di tudde non violent yépp arme moo leen rey kon seen non violence des na Mahatma Gandhi koo tudd rek Martin Luther King ko tudd sëñ Touba nag arme laalu ko kooku mooy non violent bi dëgg dëgg magu Louga bi ñu ko waxee ni que Mbàkke doo wuy ji ak waa kokki danoo xeex ak tubaab min leen déedéet bu leen dem fenn toog leen fii ma dem liggéey su ma ñëwee añal leen sama digganteeg tubaab bi dana mokk rumbax te kenn du dégg kanang mokk na rumbax aussi ba kenn déggul kanang li Sëriñ Tuubaa def moom képp a fi def du waxu daan kat tey ñaata jullit ñooy rey ay jullit ñaata chiite ñooy rey ay sunnite ñaata sunnite ñooy rey ay ay ay chiite ñaata salafiste ñoo rey ay jullit terrorisme li mu rey si jullit reyu ko si nasaraan ndax lan boolewul seen bopp Sëñ Tuubaa ni almurid ku na mu jëm si yàlla